asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu àndal ci Arafat info ba léegi ñu ngi ci tànki gëstu yi war a toog ak tey koo xamante ni ku ñu ràññale moom ci kër gi comme ni ñu koy waxee ci ñu ñu jaar yëpp soxna Sarata Cissé suñu yaay suñu maam ñu gën ko xam ci yaa Cissé euh, bokkoon ci wala boog bokk ci soxna euh, El Hadj Malick Dramé bi nga xamante ni moo doon premier xalif bu El Hadj Omar Dramé ci fàttali génn àdduna ci atu 2011 ñu toog ak tey euh, soxna Saarata Cissé suñu yaay suñu maam ñaanal ko ma soxna Saarata Sall ñu koy ñu gën ko xam ci yaa Cissé euh, ñaanal ko d'abord euh, fan wu gudd ak weer incha allah taala ñaanal ko itam yàlla taxawu njaboot gi bu baax a baax a baax ba xel may ko mu taxawu njaboot gi ba xel dal Euh, ñu bëgg seex ak moom waxtaan aju ci la ñu daan wax ak ñañu daan waxat euh, mu jëm ci euh, kër El Omar Dramé dalee wul nag ci El Omar waaye dalee na ci mën nañ ko jëlee ci maam Sanet Diarra bi maamam jaar ci El Hadj Malick Dramé bi ñu gën a xam ci Serigne Por wàcc ci El Hadj Omar Dramé ak njabootam balaa dara ñu bàyyi ko mu nuyu want ak ñiy bàyyi xel Arafat Info asalaamaaleykum. waaleykum salaam Dramé. alhamdulilah. Sall mu mel ni bëggoon nañ tey nga defal ñu ay fàttali yoo xamante ni mën nga ñu ko ñëwal ci suñu maam jooju di maam Saïd Diarra. maam Saïd Diarra de dégg naa ci ci waxtaan Alaaji Seet moo toog fii ci sama lal na maam Saïd Diarra de keroog ba maam xar mbaat jee gaañoo ñu di ko tàggee ko ko. ba ndekkee fekk ma ngi laax lañuy def mu lekk laax ba pare takk façon war na nañ dem paate bam mu bañ demee ba ci yoon mu taxaw na leen ni jox nañ ko boromam da wax nañ ni bañ ko toogee da ko nekk waa paate yi ne su fekkee niw bi maam seeta ko moom nañ ko ko nigee su fekkee moomut ko dañ ko jox boromam bañ ko joxee boromam moom itam ba mu déparé dem ba ci yoon mu wax ñim àndal na leen nii bu delloo nañ ko boromam xam naa ko ci maam seet jaara ci ay xar baaxam dégg naa ko ci moom nga moo wax loolu macha allah te loolu dafa doon loo xamante ni eh, lan lan lañ mën a mën nañ ko waxee daraja la boo xamante ni tolluwaay la kon dañ ci defee jàngar wala boog déggin ci ne jaamukatu yàlla la woon waaye itam ku amoon cër ci yàlla la. gannaaw bu ñu jógee ci maam Sanet Diarra dañuy jaar ci eh, doomam ji di Serigne Por ban fàttaliku nga ñu mën a defal ci moom. maam Serigne Por itam ku ñuy wax Omar Fama wax na ne maam Serigne Por fa ko yónni woon. muy dem mu ne muy dem ba ci yoon mu gis ak gayda ne bam ko gisee rek moom muy dellu gannaaw mu ne da dellu gannaaw da dellu gannaaw ba xaas mu ne bam mu dikkee naka bam mu da ko maam Sëriñ Por wax moo tax Omar Fana yaa ragal mu ne xanaa su su duut gaynde gi itam gis na gayda ga mu loolu la ko maam Serigne Koor wax fana Kamar Fama yaa ragal mu ne ko dee sama maam su fekkee du moo du moo gaynde gi gis na gaynde gi wax ne ni itam waa pari min waa ba ndajee waxtaane fañ koy jëli ba mu gàddaayee dem Tayba ak geeraani ñoo dajee ne ak waa pari ak ñu bokk ci moom toog ca jàkk ja ne nañ dem jëli maam maam sëriñ por mu xëy yónni Mor Fama na ko demal ma por na leen seen waxtaan bi wa de yàlla xamal na ma ko na leen ñu toog picc nga ci guy waaye xel maa ngi ci xetax na leen ñu toog loolu dégg naa ko ci maam sëriñ por te ma daan dégg ci moom xeer yooyu de dégg naa ko ci moom dégg naa ñu la wax ne maanaam xam na sëriñ bokk wax na ko sëriñ por li tax sa jumaa ji de guddi fa nga bëgg di jiite màkk di jiite fii bañ ko ko waxee mu ne yàlla dogal nag moom keram mu xam na bu mooy dugg ci wanagam xam na muy war a dugg ci wanagam am na jenn jigéen di ko gis ba mu ko gisee dégg naa mu cucc naa am na leer daal goo xam ne gis na ko muy dugg muy bis juma ba muy dugg jigéen di ko gisoon da ko fekk mi yenu eh, ndabal ndox ndab mu gis ko muy dugg foofu ba mu ko gisee la di ko daanu borom ko tam dawal si maanaam Sëriñ Poor mu ne ko waxtu jot na macha allah euh, ay fàttaliku yu ama am solo la lépp lépp rek dafa di euh, nettali wala boog it xar yoo xamante ni du caaxaan moo koy maye waaye itam du itam leneen moo koy maye lu dul liggéeyal yàlla ba yàlla jox la yenn cër yi ñu buñ jógee ci maam Malick Dramé Serigne Por dañuy ñëw ci koo xam ne nag moom li ñu ciy wax yaakaar naa lu dund ak moom la muy El Hadji Omar Dramé bi nga xamante ni moo sañ ci Arafa yan fàttaliku nga ñu mën a defal ci moom. sama baay de man. sama baay Alaaji Omar Dramé maa ko xam ci dëggu maa ko xam ci jàng alquran maa ko jëm ci jaamu yàlla maa ko jëm ci gëm ci liggéey alquran fa ko takkoon da jàng da jàngale mbedd mi ci la daan tëdd jël malaane mi teg ci kaw dënnam bi taale bi wër ko muy jàng jàngale suma mi booba mi ngeeraam bu fekkee jàngale ma pare bu gisee mata dara am di dikk mu ne ko mo koy joodo jogal dox joodo jogal dox moom mi jekke ba nga xamne ne dogal na mu jekke ba mustafa yi fekke luul mustafa mo na xam bis bo xamne mu ngi tek tere yi fa dikk ci yi rek jallar bi tere yi be jallar bu mako gisee ma dal di tit dawal dikk naka alaaj moo di ko dimbale ma ci téere bàyyi ndax xama bu ci nekk fu mu ko war a teg te moom teg na ko fi génn dem ci néeg ba ba may dikkat fekk Moustapha Diagne def fa loola moom itam loolu Moustapha loolu laa fekk fàttali ko ci mooy def noonu moom bàyyi nag ñun moom yàllaa ñu defal man de bëggoon naa ko mu bëgg ma lool gune laa di ci moom waaye bëgg na ma ma bëgg ko ko defee nag léegi wàllu kër gi ci lim ci ñun ba maay dëkk ci bi ñuy dëkk xarafa daanaka su ma na kenn jiitu ma yaasu kay ñoo fi dikk boo ñuy dikk nii yaa ngi sax ñax sax ba rab bi nga joon booba lal ngaay kii ngaay def boo defee peteñ daal def càkkaar daal da jël tóori lal def ñaari jën bii fii bële nga jël tóori gaajas booba la wax jafewul wax jafewul doon lal nga jël sa crinting teg teg crinting nga gëna rafet nga fa ne yaa sa pajas boba ñun lool mom mom moom la ñu xamee woon ba xarafa mom loolu fa na ne kan fa la xamé won jigeen ñi xamee ay crinting crinting gi dang ci teud ba yaram wi sa yaram wi melni fañ ko diiw ndek sa yaram wi lañ daan lal ci lal yi doon suñu lal yag nañ ci lool lool li nga xamné moy walu dundu bi so xé wal so saqe wal dem he to ga sak so saqe to guy ndek wer ba mu wala ngay wax li ñuy wax ndar tax weer ba mu wow ngay e def ci téré ji talib yi duñ ko gëmo mbom mi ngay e def ci téré ji ko do xam gert do xam dara waye non lañ ko togg bu ma rek ñu ñap ko ci téré ji taalibe lekk ba suur ba loolu soo doon suñ dund moom nag laax moom moo doon dund waayam dund laax moo doon xañam ceeb moo doon ndékkeem mu ndékke ceeb la ko daan def xañ muy koy def laax wàllu dëkk bi itam moo gas bi ci yoonu po yoonu xurwa fekkee naa biñ koy gas gas ko ba mu mat mu bënn mu gasteen teen maal mu bënn mu gas bi ci digg dëkk bi bi nga xamne mo nek ci kër kan xaali buri bu alay maale ko ko gas gas nañ ko ba ni bënn ba joojat alaaji maale reyna be béy ba ten bi bënn alay ma mo def loolu bay jàllal ba ko da gas ten sant bakar baakar buñ koy gas ñun ha xara fa ñoko rot bo man na ci tollu ci ay boota yooyu suñu xëyee ñu ne Omar yi yéen nañ ci dëkk bi ne ñu ne ngeen dem yóbbu ndox sanc baaka yóbbu dëkk bi sanc ba ki nga xam ne moo ko doon gas efaat ju fa ko daan toggal saakob ceeb la ko bàyyi joxoon ak diwo mooy yëpp bu xëyee moo koy toggal ñun bu ndox manqué ñoo koy root ba seetal ne ba fees waa dëkk bi ñoo ko root ba dëkk ba fees jumaa yi par itam ñun ñoo ko root ti ñi ko root laa bokk man maa kamin waa faatu kaañ suñ suñu xeen amaan fii ndox te daw ba baañ xaar si dimba góole nga gis ci pël ga léeg-léeg ñu xeen ne ko fa léeg-léeg fa ñuy continuer suñ paane ndox yi rek ba xàgg ci seetaan ba sotti mu nawet bi jotee xam nga déboree fay feer dell ñu dem da ca rooti gas nañ ko ci noor gas ko ci nawet tabax nañ ko ci noor tabax ko ci nawet buñ demee da root ku ci xam laf dëgg da nga am fukki paan sotti ci seetane ba ñii juróom-ñett ñii juróom-ñaar loolu ba seetane ba fee waa xaraf yi ñib si xaraf yi ñoo ko ñoo root por ñoo root sëñ ci baakaar ñoom ñoo ko root ci biñ koy liggéey Baay Faraa wax ne su ma fu ma fi nekk de liggéey lu ma leen wax na ngeen ko def ndax Omar liggéeyulu doomam sëtam ak sët sëtaatam laay liggéeyal su may def faas ni maa ngi bon maam seet mi nga xam ne moo topp ci yaamu si faas fu la fu la def tool ñun waa Xaraf gi la ñoo ko root ñoo daan yóbbu ndox ñun kët gi ba boo seet suñu xëyee ndékki suñu ndékki li ci suma néeg jigéen ñi suñu xëyee bis yi nga xam ne bis yooyu bis yi togg ndékki la ñu dëkk ndékki ci suma néeg ba pare ñu ne nañ yóbbu ndox faas nañ yóbbu ndox faas ñun ñëpp ñu xenu ndox yóbbu faas buñ demee léeg-léeg ndox mi jeex ñu ne dikk leen doole aat ñu dellu xenu ndox dem faas mooy faas gi ci yoonu Banjul waa tool boobu xam naa fi ne ci dend karaada la woon nekkoon frais ñoom ci bay ba ma tar rox mhm. ñun loolu ñun ñoo ñoo fa daa root wax dëgg bari na ci yi ma xam de wax dëgg arafa de bi ñee root par noonu xam ne bis bu nga xam ne bàyyi booba ñaan mi ngay ñaan pataas néew bi ca ko ko bis xam ne ku ñu wax mbuub moo ko daan ko gàtt yoo dëgër yoo li nga mu neexoon ci gi sëti ngeen fi ne man sama baaxoon waaye ko la mbuub daan di di yóbbu par ci jumaa ji setan ne ba ñun ñi xeenu ndox topp ko wala ñu jitu ko wala ñu dem wëgg ci teen ba sotti setan ne ba benn bis nak ñun ñu da yobbu ndox dugg ci auto mbubb bi ñu dem ba por ñu seen saxar ba ngay dikk ci ba baay mayeguñ ko pataase neew bi ñu seen saxar ba ngay dikk ñi na gawal jall ñi nako taxaw ba muy ñi nako gawal ko na ba moy ne ma nga jall rek xooñ mi sopp ci digg bi mu dem ba ca kanam rek li nga xam ne mooy xooj mooy sëpp rek li ci dana ci kaw kaw raay bi te boo bàyyi ma egguñ ko pataasi néew bi léegi nag ñun ñëpp daw dem parkay ñëpp ñëpp fañ dawoon làqatu ji bu mu déparé nag di dikk ba mu dikkee ba jub seen saxaar bi ba mu seen oto bi mu ngi yuuxu kandi jóob ku ñaa kandi jóob ci par moo fanaa mooy bàyyi maam góor wala xaama Kàddu Jóob ca poor moo yëkkati drapeau ba xonq da koy yëkkati da koy yëkkati da koy yëkkati ba saxaar bi da wàññi da wàññi da wàññi da wàññi ba agsi ci oto bi bi oto bi taxaw na su fekkoon ne du le Kàddu Jóob def noonu moom bu ko peele rek fale laay dale waaye moom taxaw na moom mu taxawee wàcc seen kilifa ya wàcc bay baabu xamante dikk sa ko jégglu ko pardon Moussa Cheikhou la tuddoon Moussa Cheikhou pardon Moussa Cheikhou pardon pardon pardon muy bind rek di bind rek ba mu bind bind bind ba pare jox ko bay ne ne ngoon bu dëppee na ko na tase moom por bañ ko ko joxe bàyyi ak bay bàcc ndaw mi ngi dëkkoon kër yoro mag mag ñu woon ci kër yoro la bay bàcc ndaw ànd moo bay bàcc ndaw ñu ànd seeni leefaa du hupp da doxal seeni tànk ba por Bas oram ota bidiki, maram sakar bidiki. Batay loola yalla ci sotti ndox mo sedd rek. Amul benn amul benn jafe-jafe. te defoon na loo rëy loo xam ne su fekkoon ne duut ko yàlla ya may coono bu rëy ya la waaye yàlla defaloon na ko daal ba mu dikkee jàmm rek ca mujj képp koo xam ne nag yaa nga ne woon per por kerek fa nga daw làqu ji baa ndaw moo xawee foole da daw de dikk ba mu dikkee dem ca toole ne haya hampor haya hampor haya hampor man man ko sax haya ba do yo xam nga wa nah, haya hampor kum ta sen haya hampor <laughs> hayo nekkon ken man ko wax <laughs> lu ko mel ken man ko wax bis lo won de nako bis lo won de gor hmm, gi da xam naa ci mom jaamu yalla jang alquran jangale ya. ami am ni bëgg ko mu bëgg leen yar leen ndax baay bi mu jakk yaaram yi fañ ko wéyoon fañ ko wéyee nag fii ñoom taalibe mi wéy ne Omar demoon na Màkka ci réewum Hijaas yaaram yaa nga toppaan Omar mooy Kamal Kamal mooy ko mat Omar demoon na Màkka ci réewam Hijaas yaaram yaa nga toppaan Omar mooy Kamal mun taalibe yi loolu ñoom ñoo ko woy ku ciy gëm digalam ba bu jégg jéggi siraat bi laa doo fa rus loolu moom bàyyi wéyal nañ ko ci aja màkkam goo njëkk gi ah, ajam gi ci topp fas la war bàyyi ko màkk la wàcc war fas xamat fëri bàyyi daan faatoo ko yëkkati parasor gi ni tiim ko ñun ñi nga daw tasee jëng moom ñu ci kaw fas yu war xanaa goo mujj gi mu nga dajjal mu ay kii da mën a am oto yi waaye oto go njëkk gi goo mujj gi yëpp moom fa ko dox moom ay ay war fas la moom fekke naa ko ma moom ci li ma fekkee ndaay kay ñun ñu daw ñun boo gën a la daw tàcc ji ko bu may aaj googu ñu ko tàcc ci yoon màkk amatu leen ko yëkkati parasor gi ca kaw mhm. ngi war fas yi moom mhm. macha allah mu doon fàttaliku yu am solo yoo xamante ni ki koy fàttaliku li mu dund lay fàttaliku waaye El Hadj Omar dafa mel ni ci ñi jot jaar bokk na ci yi ñuy fedd lil mooy ku doon def rassemblement ci njabootam la mooy ku daan boole ak njabootam la ndax ba ci lekk sax yaakaar na da daan wooy ak njabootam ñuy bokk di toog mu mel ni loolu comme ni nga wax ci ginnaaw loolu lim doon liggéey pour sëtam yi la yaakaar na fedd leku na ba léegi moo nekk ci sët yi samay doom ak samay sët ak samay sët sëtaat li may liggéey fu ma leen de dem leen dem leen yóbbu leen ndox sañ ci baaxat dem leen dem leen tool yi fu ne dem leen fuñ mën a dem fu mu ne lu may liggéey ak marax la ñu xool dañu ko wax li may doom ak su may sët ak su sët sëtaat moo ma tax de liggéey moom loolu la waxoon xam nga teen ci si foog moo ko gas teen yamoon moo ko gas waaye yi nga xam ne man fekkee naa ko mooy ñeenti teen ñi le moo leen gas xalaaj Maalik moo gas bi ci yoonu di daan dëkk ba xalar boo joojoon mu rey bëy xalar boo mu rey bëy बने boleh बोले बन kinga kan memo kadan ka ya mo si fon na len dan togal hay ndax ñom daluñ hor wér koor la won wér koor la won dal len de togal hay bayre mom fanane liggey de mom deug yalla dekk bi de bama ci dik man de fi ñak dik dimbi yi nga xamne mo tim dekk bi ci kër gi eh ay ci kër gi tay doom yo sew lañ def ndax amul lu leen dundal booba xamagut lu leen dundal mm-hmm. doom yaa ngi sew sew nekk fi ba dimb yole daanu fi màgg fi ba dafa rëy doom yi da ba dafa mag yëpp mm-hmm. kër gi loo ne dund fi waaye saxaloon na nàkk ak àllarba sax loolu man la ko yàlla seddoon ci moom bu ñu jiyaan dugub dugub fañ ko tubi taale bi daan yendoo tubi ñun ñu topp ci jiba waaye wattu la ñuy ngëm da topp ci jiba ngoon jot ñu wàcc soo wàccee yow boo war a dem sa tool nga dem konko ji sa am sa dem konko ji sa tool waaye tool bi nag du rëy <laughs> tool doon moom ko defee nag loole taale ñoo bàyyi ñoo daan loxo su ko defee nag su jékkee ba nga xam ne fi ne ni yàlla dogal na ñu ji mo xotte gi des ma jël ko dagg ko ma dagg ab àllarba ma dagg ko daggee ñu waa kër gi soqale ma ñu wal ko bu ko defee mu yëkkati peñab sukar wala mu yëkkati peñ xam ngeen ko peñab sukar peñ peñ peñ laay doo ab ab sukar boo def ab peñ peñ de bu gudd la do bu sukar si boo gudd la waaw fañ ko toj def kaay xogg mhm. ñu jox ma ma dëbb ñu nokkasee ko ko wala mu jox ma keesi suukar ñu nokkasee ko suñu ximoon xaañ bi da yóbbu ca toole jigéen ni kii xeenu ñelañ gi jël tenteng teg ca jël bool teg ca borom laax bi xeenum laaxam sa doom xeenu la soow mi ñu topp ci bàyyi na suñ lekkee ba pare moom moom wax dëgg yàlla ko fonk la woon njaboot suñ lekkee ba pare moom bu jëlee soo def ci ci laax bi lekk ba suuf jañ ay guneem ko buy ba sottil la ca nga day yóbbu njël buy ba rek sotti waaye la ca def noonu wàllu lekk itam ganaar ko saxoo ci man ba ma ko xamee moom bët boo set dana rey ganaar def ko reer bu ko defee reer taaj bool bi ndable ci digg laalam bi nii ni ma toog nii yónnee kudd nga indi kudd gi mu dindi am joxal mariam yaya bokke ci njabotam nga dik mu joxal del am jox xawa xawa del bokkal ci njabotam mu dindi jox la nga la joxal sukkee del jël bokkal njabotam mu am joxal fadi fadi del bokkal ak njabotam ki ci mu jox ay doomam ni lek ci bi nga jël nag yaqi ci tip piip piip piip <laughs> ko <laughs> ah maanaam sëñ moom ku bëggoon ganaar la na ganaar waaye nag lum mu ci lekk loo neex lu may lekk bokkoon njabootam njaboot gépp dañ ko moom te bàyyi boo ku daan janaab la janaab ko daan yar itam da lekk nga da ko xoolit bëggut ko woon bëggu doon xoolee lekk ngay koy xool loolu moom ñi mamut ko <laughs> macha allah kon eh, mel na ni <laughs> eh, kon mel na ni kon mel na ni kon kon mel na ni mbokk yi bàyyi xel kon Euh, mel na ni bëgg ganaar gi di euh, gan yaakaar naa ndax euh, ba ca maam yàlla ba ci maamaati maam yàlla la ko waral nag amaana dinañ ko gën a gëstu mu gën a leer waaye en tout cas am nañ mbégte kontaan bu baax a baax ci fàttaliku yi nga xamante ni jot nañu ko tey mu jógee ci soxna Sarata Sall suñu yaay Cissé di ko ñaanal lañu ko daan ñaanal rek fan wu gudd wu ànd ak wérug yaram waaye itam wéru xel wéru xol. may ko mu mën a taxawu ak njabootam ba xelam dal bi jaay sëriñ bi sallallahu alayhi wasallam kon nga dénk ñu ay kàddu boole ko tàggatoo rek waaw fexe daal mel ni seedi maam la ko dalay ci maam seet jaara ma ci maam sëriñ for ma ci maam rajo mat dalaame seen kat seen niñ daan doxalee ci àddina ma de li ma gis ci ñoom ñu ko doon doxalee ca dina ah njaboot bu ko ci doxalee naa ci kontaan bu ma ko ci gisut nga xam ne yàllaa ko ko doxal lool maa ngi sant yàlla ci li ma gis ci yéen itam te ñaan mu yokk yàlla may leen fan may leen wér kër leen ci boppam kenn taxaw taxawaayam ba daa jaay sang bi barke alquran barke maam sëriñ Faal maam sëriñ Faal ak maam seet jaaraak maam rajo Madaraay bi ñëpp alhamdulilah sant yàlla waaye itam sant mboolem ñi nga xamante ni ñooy doon bàyyi xel ci Arafat eh, info ñu ngi woon tey ak soxna Saarata Sall bokk ci njabootu kër gi macha allah ni mu ko waxee li gën a neex ci histoire mooy li nga xamante ni donc dund toog di ko nettali incha allahu taala sant gërëm bu baax a baax ñu ñu àndoon tey Seydina Omar euh, Hadj Makhtar Seydina Omar El Hadj Alioune sant leen gërëm leen bu baax a baax waaye tam sant leen yéen itam ci topp geeg teewle gi incha allah dèjà ku ngeen continuer lamp bi daal fii la ci Arafat info ndax mooy suñu niituwaay bégal leen daal ci la ñuy dox bu ñu demee ba naroon ko def seeti leneen jërë ngeen jëf.